foire bu mag a mag bu ñuy amal ca dakaar ce monument de la renaissance africaine di 6 au 20 octobre 2024 AMC business ànd ci ak Nourine Karabash ñoo leen di invité ci foire international de commerce bu ñuy amal juróom-benn fan ci weeru octobre jàpp ñaar fukki fan ci weeru octobre fële ca dakaar ca monument de la renaissance africaine di foire boo xam ne nag bu mag a mag lay doon di itam boo xam ne dana doon rendez ci mboolem yëngu ci wàllum jënd ak njaay ñoo daal di koy teewe si dañu nag amal activité yi ci fànn yi may bëgg a wax bokk na ci agriculture ak agro alimentaire industrie énergie commerce ak artisanat tourisme télé télécom ak internet recherche waaye itam finance ak assurance yi yëpp kon dina doon activités yi nga xam ne dañu leen fa xaar foofee ca foire bu mag mag bii ñu amal fële ca ah, Dakar yéen ñi nga xam ne yéen yëngu ci wàllum jënd ak njaay mën ngeen a gaaw ngir kon ci stand yi dina yaat lool ndax dina toll ci 9 mètres à carré stand yi nag njëgi toll ci cent cinquante mille kon képp koo xam ne yëngu ci wàllum jënd ak njaay occasion ngi nii ngi nga mën a dem fësal sa am njaay waaye itam client yi itam ñu leen fay xaar ndax ay xéewal waaye tam produit ngeen mos a gis fenn kon ma ngeen ko faa daal di fekk foofee ca monument de la renaissance africaine di ko tàmbalee juróom-benn fan ci weeru octobre jàpp ñaari fukki fan ci weeru octobre képp koo xam ne yittewoo na ci stand yi wala mu am kon xalaat ci lu ni mel mën naa woote ci numéro yi 77 127 0035 77 127 535 wala 76 127 00 35 wala 78 683 89 89 78 683 88 88 numéro yooyu yëpp kon am na whatsapp kon ngeen gaaw ngir mën a teewee ci foire internationale bu commerce bi amal fële ca Dakar ca monument de la renaissance africaine li ko tàmbalee juróom-benn fan ci weeru octobre jàpp ñaar fukki fan ci weeru octobre kon yéen commerçant yi yéen clients yi gaaw leen.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 asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy déglu ñu topp ci Mouhalim Info International ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di am mbégte lool di dellusiwaat ak yéen ci xibaar yi nga xam ne mooy yu mujj ci daanaka moins vingt de vingt quatre heures yi am euh, démb ci guddi ak tey ci entre Hezbollah ak. Euh, Israël waaye aussi entre Hamas ak Israël entre Yémen ak Israël ak entre Irak ak Israël mu am nag ay développement yu doy yoo xam ne am na ci bu ñu doon ne tey ñett euh, def nañ ko ba mu dem ci juróom wala juróom benn maanaam double ko mu nekk nag loo xam ne lu doywaar waar la mu nekk prémisse d'une guerre de volonté entre le camp occidental représenté par l'Amérique, l'OTAN de manière générale, ak euh, l'axe de la résistance islamique euh, nga xam ne jubluwaay bi pour Amérique mooy mu fexe remodeler géopolitiquement ak géostratégiquement Moyen-Orient fexe ba changer ko nga xam ne intérêt yi nga xam ne daf ko am sur le plan économique politique mais également social culturel mu mën ko samp foofu mu nekk nag loo xamante ne ni lu doy waar la ñële ne ko nag euh, muy julit ñi loolu du ci am donc moom lañ leen bëgg a faram-fàcceel ak quelques commentaires yoo xam ne ci telegram yi ñu jot ak ci euh, li nga xamante ne ni mooy euh, information muy nouvelles yi muy barqiyaat yi ak axbaar yi ñu boole ci ci def ay analyse muy taxlilaat ak i décryptage muy luñ tuddee fakkur rumuz donc li jiitu ci information yi nga xam ne moo gën a fës moo gën a sensible euh, jële nañu ci ay source euh, yoo xamante ne ni euh, commencé na di am ne ñi nga xam ne ñooy israéliens yi nee nañu actuellement am na ay mobilisation yoo xamante ne ni ñu ngi koy def gannaaw bi nga xam ne jot nañ ne force ar ridwaan force ak ridwaan nag mooy bi nga xam ne moom la Hezbollah ak Iran ak l'axe de la résistance créé mu nekk ay force terrestres yoo xamante ne quwa barriya la waaw yoo xam ne dañ leen tàggat pour ñu dugg biir Israël muy Galilée pour occuper ko parce que boo delloo ci téere yahud yi waxoon nañu lu mel nii ne dina am waaw yooyu dinañ ci ñëw spécialement ci téere yooyu ak li ñu wax muy ci Tawra donc euh, muy Pantetec euh, donc euh, parce que dañoo jot ñoom ay information yoo xam ne nee nañu confirmé guñ ko waaye Hezbollah mbébétam mooy dugg biir Galilée pour occuper ko moo tax it am na benn haut responsable américain bu CNN nee na sax est-ce que actuellement nii kii di ami Israël est-ce que du attaqué le 7 octobre muy maanaam semaine bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku première année muy at bi jiitu bu njëkk ci li Hamas def eh, Israël fële ci Gaza est-ce que pour fatt loolu ba nga xam ne bii la ñuy gën a eh, jox gëdd est-ce que du ci attaqué Iran loolu eh, ñu xool ko sunu kanam la nekk ba tey ci journalu yi jot Aharonot commandement bi nga xam ne mooy district central bu Amérique mooy. les force euh, américaine muy Michael Corella euh, dina àgg tey ci euh, fi nga xam ne moom mooy Israël parce que moom à chaque fois que bu amee ay situation yu critique ñu war a tànn moom dafay ñëw parce que dafa bokk pour ñëw ci commandement bi ak ci contrôle opération yi nga xam ne moom la Israël di def parce que xam ngeen ne Israël mënul def dara lu dul moom donc bu guerre naree am moom daf ci war a apposer signature am joxe vision muy bi nga xam ne militaire bi Pentagone joxe beneen xibaar bi mooy Russie ci seen jëmu bopp informé nañu Iran démb ci seen satellite yi ne am na ay quatre avions yoo xam ne F-35 la yuy tambaambalu ci golfe Persique bi yoo xam ne euh, diggante Arabie Saoudite ak Qatar ak euh, Émirats Euh, foofu la ñuy doxantu di tambaambalu xam naa pour essayer gën a jege pour attaquer euh, Iran parce que xam ngeen ne euh, Netanyahu wax na ne moom li ko gën a neex mooy liggéey bi nga xam ne Arabie Saoudite mu ngi koy def ak kii di Émirats Arabes Unis muy lu mucc ayib parce que dañ leen jox seeni base militaire ak seeni maanaam aéroport saa yu bëggee bombarde ji lu mel ni Yémen foofu la ñuy jóge bombardé ji ñoom israéliens yi te loolu ko def mooy saoudiens yi ak émirats yi donc mu nekk loo xam ne lu ñuy topp la aussi beneen information bi nga xam ne mooy li am rajo militaire bu Israël nee na seen armée mi ngi préparé pour attaquer Iran waaw te pour dóor ko nag mu dóor boo xamante ne ni bu bu metti lay doon te nag monde bi ci jëmu boppam mi ngi lu mettee nga koy xaar waaw monde bi fi ñu jëm nii àdduna bi lu mettee nga koy xaar parce que ñoom dinañu dóor euh, euh, euh, kii nga xam ne moom mooy Iran nee na ñu ngi actuellement sax pays arab yi ci seen jëmu bopp ñoom ñëpp jox nañu seen loxo ne dinañu ànd ak ñun pour fexe ba nga xamante ne ni li ñuy jóg pour dóor ko Iran dina mën a am yombalal ñu ko donc gis nga mooy même pays arab yi nga xam ne bërki démb ñoo daje woon nag Euh, ministre bu euh, kii président bu bees bu Iran bi ne ñoom dañoo neutre gis nga euh, Netanyahu ak mbokkam yi ñu ngi leen di feeñal ne ne déedéet neutre leen parce que y une large coopération boo xamante ne ni dans le rattachement de la part des partenaires rémunérés de la région gis nga donc mu nekk loo xamante ne ni Arabie saoudite la ak Émirats arabes unis waaye également surtout Jordanie ak euh, euh, Bahreïn ak Qatar aussi donc euh, li ci kanam rawiti bët armée israélienne bi aussi ne lii nga xam ne ñoo ngi koy wax ne ñoom dugg nañu tey ci kila muy benn zone ci fi nga xam ne mooy Liban nee nañ du dëgg waaw ay propagande la donc gis nga ñoom ñooy wax loolu donc mu nekk loo xam ne ñoom ñi ngi di seen morom di wax seen seen bopp donc ba tey ci méta média israélien yi ci yee jot Aharonot nee ci estimation yi ñu jot nga xamante ne ni kii di Corella moom mooy ñëw muy général euh, chef d'état-major bu américain yi dina waxtaan ah, pour ñu coordonner li nga xam ne mooy réponse bi ñu israélienne bi mu war a attaquer Iran ban genre réponse lay nekk donc mu nekk loolu aussi ñu ngi koy xaar amul benn problème donc kuy li ñu naan kuy kuy kuy tëru kuy teggee ci ay incha allah donc l'armée israélienne ci jëmu bopp nee na euh, mi ngi doog a reconnaître ni missile yi iranien yi sànni woon ci mardi bi passé dal na dëgg dëgg dëgg ci seen base bi nga xam ne mooy Nevatim bi nga xamante ne ni moom la avion de Chahid F-35 yi nekkoon ba nee nañu sax li mu 20 ci li iranien yi joxe mais jot nañu ci ay sources yeneen yoo xam ne ak i ay image yoo xam ne nee nañu ëpp na loolu fop fop fop fop ba actuellement nii euh, l'armée israélienne dafa def censure censure boo xamante ne militaire mooy muraqaba askariya bu sévère kenn warul photo kenn warul envoyé benn image parce que day dugg ci net bi bu ko defee ñëpp gis te loolu actuellement dafay décourager loo sa population bi nga xam ne mu ngi ci pax bi mu ñu gis dëgg gi lu dul ñoom li leen won donc loolu aussi mu nekk beneen doole boo xam ne actuellement sur le plan psychologique Hezbollah mu ngi koy war ci kaw euh, euh, euh, Israël donc loolu aussi bu ngeen ko xoolee di ngeen gis ne image yooyu gis nga comme destruction wu Gaza am na ci ay quartiers yoo xamante ne ci tele Aviv wala grande ville yi nga xam ne israélienne noonu la demee maanaam Hezbollah daf koy yàqate yàqate parce que xam nga ay bopp bomb yoo xam ne une demi tonne la wala wala wala mi wala wala une tonne maanaam lu toll di junni kilo wala téeméeri kilo juróomi téeméeri kilo mu dal ci dëkk kooku daf ko jaxase donc moo tax actuellement ñu tere ku génne image yooyu mu mel ni comme ñoom daal dara nekkul moo tax euh, pour préparer à toute éventualité ci wàllu prospective guide suprême bi nga xam ne mooy Ali xamanaay mooy sëriñ bi gën a mag foofu nga xamante ne marja at taqlidi la muy source de référence ci am ay comme nekk chef d'état waaye aussi am ay taalibeem euh, euh, euh, nekk le chef d'état-major général des armées iraniennes muy Basij di di gardien de la révolution yi mais aussi armée classique bi traditionnel bi joxe na ordre ci maanaam mu ñu préparer de manière la plus élevée waaw état état état de de d'alerte bu maximal pour que ñu préparer wu pour xeex donc loolu mu nekk lu doy parce que xam nga ne taalibe yi doon nañu wax ne na joxe ordre pour ñu jeexal Israël donc dafa mel ni seen wax dégg na ko te pare pare nañu trop trop trop trop ñoom iraniens yi pour en découdre ñoom ak Israël ak Amérique donc loolu nag mais loolu nga xam ne mooy alerte maximale bi nga xam ne gidd bi joxe na ko muy alqaidu sawra mu Seyid Ali Khamenei loolu nee na pour mën a fexe absorber lépp loo xamante ne ni dana ko xiil muy Israël ñoom ñu mën koo euh, dékku donc euh, euh, mu nekk loo xam ne donc loo xam ne ñu ngi koy préparer Israël ak Amérique moo tax Russie ci jëmmu boppam mettre na en garde ñi nga xam ne ñooy citoyen yi recommander leen ñu quitter gaaw génn Israël waaw ñu gaaw génn Israël même Chine aussi moom it nañu gaaw ne chinois yi nañu gaaw génn fi nga xamante ne ni moom mooy Israël parce que xam ngeen euh, euh, euh, comme Israël cokkaasoon na Russie ci bu yàggul ba Russie fi mu nekk nii muy Khomeini base militaire boobu am na lu mu jencal Israël ba tax na mi ngi renforcer alliance bi nga xam ne mooy stratégique la ko tuddee et industrielle ak Iran loolu nag boo leen ko déggee ci langage diplomatique mooy li nga xam ne moom mooy puissance yi nga xam ne militaire yi Iran amoon dina ko yokk dana ko ci jàppale ba tax na actuellement nee nañu estimé nañu trois bombes maanaam quatre cent cinquante kilos d'uranium Iran am na ko donc da dem rek xam nga bu njëkk ba da ngay dem rek nga jënd ogive tet bi boo ko jëndee rek maq doom bi ci nga koy def boo ko defee gis nga arme conventionnelle yi nga xam ne yu supersonique yi yor wala balistique yu Iran yooyu mën nañu changer tet bi rek mu nekk conventionnel mooy bi nga xam ne moom la ñu yor léegi dañ koy changer rek def ko li nga xamante ne ni moom mooy nucléaire donc loolu observateur occidentaux yi sax ñëpp d'accord nañu ci actuellement mun nañu yaakaar ne Iran am na lu moyen moyen moyen loo xam ne li nga xam ne ci iran uranium enrichi quatre cent cinquante kilos yoo xam ne mën na ci am trois ogives nucléaire te loolu sax moom mooy li nga xam ne ñoom lu ñu estimé waaye li Russie joxe moom moo gën a parce que am nañu ay information yu yu yu précise que ne actuellement Iran changé na doctrine militaire am léegi mi ngi maanaam préparé wu à toute éventualité te wax na sax ci bërki démb ne bés bu ko Israël laalee moom dina utiliser arme non conventionnelle donc ci loolu stratégie bu ne arme non conventionnelle militaire moom mooy yi nga xamante ne ni moom mooy Euh, euh, arme nucléaire wala chimique wala biologique te bi ci gën a jege mooy nucléaire Iran boobu la yor donc gis nga loolu aussi mu nekk beneen menace parce que actuellement ñoom ci seen jëmm bopp iranien yi préparé nañu trop trop trop à toute éventualité moo tax ki nga xam ne mooy Trump euh, is rajo maanaam média israélien nee nañu Trump nee dañoo war Euh, Israël dafa war a attaquer directement installation nucléaire iranienne waaw donc mu nekk loo xam ne déclaration bu bu grave boo xam ne euh, euh, jurul jàmm waaye moom nekkoon na fi def lu mu def gaa ñi répondre ko rey ci ñoom ay généraux ay au ay maanaam haut gradé américain blessé ñu bari rey ñu bari waaye ñoo moom waxu ko te ci gis nga bi nga xam ne mu ngi doon def face à face ak Biden lu mel noonu secret boobu génn na donc également ci situ wala nee na Benjamin Netanyahu démb dafa rëcc rëcc bi mu rëcc nag ca këram ca Césarée foofu la ñu doon viser parce que dañu nekkoon ci bi nga xam ne moom mooy ay réunion ci bi daje boobu nag bi ñu déggee sirènes yi di di di di di jib ci la ñu daw dugg ci seen pax yi euh, donc armée israélienne bi nee na publier na communiqué muy muy muy wax muy wax loo xamante ne du dëgg waaw du dëgg ne ne ñoom ci Liban dañ fa attaqué ay sites de production d'armes ay installation de stock d'armes ay moyens de collecte de renseignement ay centre de commandement ak infrastructure ci Beyrouth alors que gis ngeen li nga xam ne mooy image yi muy tiré ci Beyrouth mais amu ci dara loo xamante ne ni luy wone ne ay yi li mu wax nii loolu la ay ay ay ay immeuble civil yoo xamante ne ni ñoom ñoo ci nekk ay civil a ci nekk ñoo xam ne jotewuñu dara ak guerre bi ñoom lay tiire parce que amul données stratégiques yoo xam ne moom am na ko muy Israël nga xam ne dina ko mën a utiliser contre le Hezbollah bu ko defee mu nekk loo xamante ne ni euh, euh, euh, dina ko mën a wone moo tax dóor yi koy dóor ci terrain bi dafay mujj nit ñi Euh, bu ko defee ñeeññi boobu euh, moo koy yóbbu mu dem ci fayu ji ci civil yi waaye bu ñemee ci ñi nga xamante ne ñoo koy dóor ci kooku la war a dem waaye baqaar gi leen jàpp ak ragal moo tax lu ne hëpp rek ñu daw moo tax euh, tey ci biir loolu jàppante bi nga xamante ne ni am na Hezbollah détruire na beneen char ba ni may waxee nii peut-être am na yeneen yi ci tegu Euh, ci maanaam jàppante bi ci suba ak léegi Hezbollah aussi euh, euh, depuis ce matin ba 15 heures plus de 110 missiles lancé na ko ci maanaam ci Israël bàyyiwul fenn nag bàyyiwul fenn fépp foo xamante ne ni ba muy Naharia muy muy fi nga xam ne moom mooy Haïfa seen zone bi nga xam ne mooy bi économique nga xam ne moom moo ëmb site stratégique secret yi gën a mag foom fi nga xamante ne ni moom moom xay Haïfa moom mooy euh, euh, fi seen centre d'électricité bi nekk ak gaz bi ak yooyu yëpp moom ci jëmu boppam Hezbollah euh, bombardé waat na ko donc amul dara lu mu bàyyi tey foofu beneen bi encore bi ci tegu mooy ne sànq nii rek Hezbollah nee na lancé na benn missile boo xam ne ci société industrie militaire bu tudd Atta nga xam ne boobu Euh, australiens yi géo euh, euh, néo-zélandais yi ak américains yi ak anglais yi ñoom ñoo ko def foofu mu nekk site secret boo xam ne sax tey israéliens yi dañoo tiit parce que yaakaaruñu woon ne Hezbollah am na information que ne site boobu am na parce que site zone interdite la boo xamante ne ni dañuy tere civil yi dugg fa même yenn militaires bu ñu amul autorisation site boobu nag mi ngi nekk Sakin waaw Sakine nag moom tey moom la ñu dóor dóor yu metti ba tey encore ci même xibaar yi Irak encore mu ngi commencé wone dooleem su euh, de plan euh, sur le plan euh, maanaam militaire de manière progressive parce que démb xam nga waxoon naa ko missile bi mu dóor téléguidé la maanaam day day romb ci bara bari ci maanaam ci li nga xam ne mooy barrage yeeg yi nga xamante ne ni moom la ñu teg pour mu bañ a jàll ba te dañ koy mën a manipuler ba mën a infiltrer wu mu dugg te kenn di ko gis démb loolu la def ba dugg fi nga xam ne mooy euh, euh, fi ñuy commandé nga xam ne foofu moom mooy seen seen seen euh, base centre de commandement bi foofu la aw rey ñu bari mais Israël nee na deux la blessé vingt trois mais du dëgg ay dizaine la fa rey loolu aussi daf ko jaaxal ba léegi médias israéliens yi ñu ngi demander naka la loolu mën a amee tey tey aussi defaat na lu gën a grave parce que tey visé na Haïfa directement ak même missile yooyu nga xam ne actuellement défense euh, israélienne yi mënuñu ko détecter mu nekk loo xam ne encore euh, une nouvelle prouesse boo xamante ne ni technologie militaire boo xam ne euh, kii di Irak def na ko ba mu jaaxal sax ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy militaires yi israéliens yi naka la ñu mën a def tey ba loolu mën a am donc loolu moo tax ci tey actuellement euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy médias israéliens yi euh, day sax armée bi moo ko wax parce que armée bi ci dañu ne ci seeni euh, rajo ni ñoom daal dañoo jaaxle jaaxle bi ñu jaaxle mooy efficacité maanaam taxawaay bu rafet bu njàmbaare bi nga xam ne pare pour xeex la sëgg xeex dóorante te kenn du àtte moom la ñu gis ci waa Hezbollah waaw waaye aussi li nga xamante ne ni moo yóbbu sax ñoom ci seen jëmu bopp ñu mën a taxaw ci kanamu Israël ba pare loolu ñu gis efficacité moom moo mooy bi am noonu moom la ñu dóore waaye aussi ñàkk efficacité boobu la ñu gis ci ñun suñu soldaaru israéliens yi loolu ñoom ñoo ko wax rajo militaire israélien mu ne nag lu tax parce que looloo indi sax dee bu bari ci ñun ñun israéliens yi waaw ci dernière vingt quatre heures yi ñaari jours yi muy euh, euh, euh, jeudi ak vendredi boo gisee dee yi bari ci ñun loolu moo ko indi waaw te loolu nag musula am waaw parce que mu ngi jur ci ñun nuñ tudde sax maanaam désobé désobéissance aux ordres parce que liñ leen joxoon ne leen na ngeen ko respecté moom la ñu mënul respecté parce que yaakaaruñu woon ni situation bu mel nii dina leen fekk ci ci ci ci ci ci dina leen fekk Liban léegi nag loolu moo tax mu am problème ak li nga xamante ne ni euh, am na ci ñoom sax da ngay ciy gis ay soldats dañuy daw waaw dañuy daw génn xare bi bu ko defee euh, euh, mën a mucc mu lu indi loolu nag moral boobu bu extrêmement bas boobu nga xam ne léegi fi mu nekk nii amatuñu yaakaar ci seen bopp pour xeex lu doy waar la loolu nag boo ko xoolee par rapport ñi nga xam ne ñooy en revanche muy Hezbollah da ngay gis ci waa Hezbollah de ci certains cas ñoom ñoo gën a am équipement yu gën a dëgër militairement que force spéciale yu loolu lu ko indi mus naa ko wax ci samay chronique parce que Hezbollah euh, bu ñu jotee ay armes ak Iran ak Syrie dañu koy defaraat waaw modifier ko comme Kalachnikov yi comme euh, AK-47 yi wala leen dañ koy modifier defaraat ko ba nga xam day gën a performante que yu yi nga xam ne moom mooy arme d'origine yi wala dérivé yi donc loolu moom moo tax ñoom yi ñu yor force spéciale yi yu israéliens yi wala yu américains yi yoruñu ko moom la euh, maanaam média israéliens yi di wax militaire mu ne ñoom dañuy utiliser ay engins yoo xamante ne ni sax kenn mosu koo gis waaw yu fi amul fenn Russie amu ko euh, euh, Amérique amu ko force yi nga xamante ne ni puissance yi yàgg di tagg ak ak ak ak rëyal amuñu ko mais ñun ñi nga xam ne ñooy eh, eh, waa eh, Israël ñi ngi gis loo xam ne ay explosifs yoo xam ne mosuñu ko gis ci kaw suuf waaye aussi gis nañ ci ñoom waa Hezbollah ñu nekk ñu organisé waaye aussi impossible à détecter kenn mënu leen détecter maanaam bu ñu làqatoo fenn kenn mënu leen gis ni ñuy camouflé woo lu doy waar la donc nga xool leen dañuy utiliser sax léegi ay haut-parleur pour ñu moquer di ñu di ñu di ñu kekkantoo di ñu baraawoo di wa di baraawoo force spéciale yi dañuy ubbi ne oh allo ñu xool fële rek fekk be dóor bi dal mu nekk ay pièges yoo xam ne dañ leen koy eh, eh, teg léeg ñu def sax ci biir haut yi lu mel ni comme ay ay ay ay ay ay gaynde buy yuuxu wala kii pour dis dissuader leen xam nga rek ci militaire stratégie la lépp a ngi ci mu ne bu ko defee rek eh, dóor yi dal loolu nag sonal na trop armée israélienne te diggante ñaari jours yi moo tax. ci ñun mu ñoom ñuy continuer ba tey xam naa ne dañoo mënatul téye censure militaire bu sévère bi nekk ñu ne ci ñun plus de trois cent soldats ci Tchad rey nañu leen ñii brese nañ leen ci quarante huit yi maanaam ci ñaari fan yu mujj yi rey nañu leen loolu nag fa shahida shahidun min ahliha ki seede loolu mooy ñoom israéliens yi lii Hezbollah waxu ko waaw ñoom loolu lañu ñu seede ne ci ñaari fan yi trois cent soldats ci seen jëmu bopp génne maanaam rey nañ leen ñii ñu blessé leen moo tax xisbullah ci jëmu boppam mu teg ba tey toujours ñoom euh, euh, euh, média militaire israélien yi nee na xisbullah moo tax actuellement lépp lu mu dóor rek day réussir te lu bu réussir réussir maanaam réussite boobu dafay indi dafay faagaagal bu baax a baax force spéciale yi nga xam ne ñooy li israélienne moo tax actuellement bëggatuñ dara dara dara ci xeex bi seen moral dafa nekk na au plus bas niveau donc alors que force de combat yi nga xam ne moom la xisba yaa yor ñoom dañuy yàkkam yàkkamti sax xeex bi waaw waaw waaw dañuy ya di te kenn am maanaam seen décision yi nga xamante ne ñoom la ñu jot ci seeni commandant duñ ko flèche maanaam duñ ko weddi dañ koy def comme nu mu amee solo niñ leen ko digalee muy ndigal noonu lañ koy defee moo tax parce que boo dee xool ci ñun actuellement mu ne mille quatre cent soldats ci ay euh, junni soldats ak ñeenti téeméer ba tey média israélien yi ñooy wax de junni soldats ak ñeenti téeméeri soldats kenn gisatu leen ñu ngi jàpp nag ne dañoo daw euh, bëggatuñu xeex ak Hezbollah moo tax mu nekk lu doy waar loolu nag bu ngeen dee xool euh, bu ñu sofee li nga xam ne moo ci tegu tey di ba ñetti ñaari fan yi tey tegu ci mooy ci ville yëpp amul fu ñu laalu ci biir Israël muy Kiryat euh, Kriyot muy ci nooru xayfa ay lance missile lañ ko dóor lu mel ni al Malikia euh, euh, site ay missile guidé lañ ko dóor lu mel ni Safat moom daanaka sax foofu tëj na fi mu nekk nii donc foofu aussi ay missile lance missile lañ ko dóor lu mel ni Sosa foofu rassemblement de véhicules ay euh, militaires ak ay soldats ñoo fa nekkoon ñu dóor leen ay missiles te léeg-léeg yi day jéggi maanaam euh, euh, demi tonne wala tonne yoo xam ne souvent missile burkaan burkaan mooy volcan volcan mooy burkaan moom lañ ko tuddee xam nga volcan burkaan fu mu aw musiba agsi fa donc ci Kiryat Shimona ñoom it ay salve de missile muy salliyaatu sawaarix moom la ñu sànni ci ñoom ak base Iliania foofu aussi ciblé nañ ko ak ay missile Maruna Ras ñoom it foofu soldats yi bi ñu bëggee pénétrer tey dóor nañ leen fa dóor yu metti ba ay pertes yu confirmé ci ñoo xam ne ñu dee ak ñu blessé ci Roy Satalam aussi même chose collines yooyu ak ci Kafr Shuba foofu yëpp visé nañ ko ak ay ob yoo xam ne d'artillerie la yu lourd yoo xamante ne ni tey te touché na directement seeni cible bàyyi fa ñu dee ak ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu blessé donc loolu mu nekk loo xam ne euh, euh, euh, lu doy ba ci colonie bu carmielle ak maanaam Doviv foofu yooyu yëpp ay lance missile la ñu fa wàccee lu mel ni Baydar ak Al ades nga xam ne fan lañ leen njëkk a duma ak Yarun foofu aussi missiles yi ak obus d'artillerie lance roquettes yi mi ngi dakk mi ngi mi ngi jolli ci seen kaw israéliens yi donc loolu mu nekk loo xamante ne ni ak maruna raas nga xamante ne ni ñi nga xam ne mooy mujaahidiin yi di di force de la résistance yi ñi ngi exploser rek mooy comme lii maanaam euh, rajo is euh, média euh, militaire israélien yi wax ñi ngi exploser ay engins yoo xamante ne kenn musu koo gis explosion nu mu grave contre ñi nga xam ne moom mooy soldaaru israélien yi donc mu nekk loo xam ne euh, euh, euh, actuellement am na yooyu saa yuñ ko dóoree rek parce que ay piège lay doon mu nekk luy faagaagal armée israélienne waaye aussi di sedd xool ñi nga xamante ne ñëpp dañoo bëgg ñu fayu donc loolu actuellement moo nekk ci front bi am na yeneen yi nga xamante ne nii moo ci mooy ñëw mais incha allah bu ci ñëw rek dinañu ko àggee donc actuellement am na yeneen aussi yi nga xamante ne ni ñu yu ñu dikkal la muy ci ki nga xamante ne ni mooy Irak Irak nee na léegi la ak si trois cibles yu vital maanaam laal na ko ci nord d'Israël mooy Galilée foofu aussi ay drone la fa yóbbu waaw Euh, ay drone la fa yóbbu fi nga xam ne Yémen ñoom ci seen jëmu bopp ne américains yi li ñu leen laal ñoom ak britannique yi ciblé leen seen installation civile ci Sanaa loolu du wàññi dara dara dara dara li nga xamante ne ñoom war nañ ko def pour jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, euh, seeni mbokk Liban donc israéliens yi toujours nee nañu gis nga ñëwaat ne beneen information ne deux cent missile sànni nañ ko ci euh, suba ak euh, euh, léegi donc ki nga xam ne mooy journal Yediot jot nee na actuellement désastre la bi la ñuy la ñuy la ñuy bi may wax ni yëpp ay télégramme la yu ñëw désastre la maanaam Israël commencé subir ci ci ci manœuvre mi terrestre au sud Liban maanaam musiba la commencé am moo tax Itamar nga xamante ne ni Echner moom mooy correspondant politique gu Yehiye Aronot nee na Hezbollah actuellement ay missile yu muy sànni foofu aussi mooy Fadi waaw yoo xamante ne dafa viser base u Nasher euh, nga xam ne ci foofu la nekk ak ay installation pétrolière ak gazière ak nucléaire ak ay système de défense aérienne moom lay lancer actuellement ni donc gis nga moom xaarul sax waaye ku ja foofu nga xam ne mooy ñi nekk ci région boobu moo xamante ne mooy bâche nachaire ak yooyu ñoom it ñi ngi ñam li nga xamante ne ni moom la ñu war a ñam te kenn du ko wàññi xayra manqusin moo tax toujours média israélien yi li ñëw léegi mu ne ancien porte-parole armée bu Israël Nachman Shay nee na ñun ci suñu jëmu bopp war nañu wax nit ñi nous devons dire au public euh, que ne ñun dugg nañu ni rubba

de parce que ah, du ñu jël ay bomb yoo xam ne une tonne lancé ci plus de soixante dix fois ci bërëb wala feneen ñu ne foofu kenn deewu fa waaw mucc nañu donc médias israéliens yooyu ba tey ancien vice président bu conseil national de sécurité Eitan Ben David moom na nee na am na grande différence entre attaque aérienne ak manœuvre terrestre waaw donc manœuvre terrestre day tax suñu soldats yi exposé wu à alors que boo amee ay avion yow da ngay bombarder rek muy wàcc doo xool te yow sax ñi ngay bombarder ay civil lañu bu doon ay militaire sax ñu wax ne donc c'est très bien parce que ay cible stratégique mais toujours tactique ci guerre loolu du ko jeexal moo tax nee na manœuvre militaire bokkul ak attaque aérienne donc moo tax tey ñu ngi ñam euh, euh, euh, lu ñu musut la ñam ba tey ci média israélien nee nañu ancien vice président bi nga xam ne mooy conseil national de sécurité bu Israël waaw nee na ñi ñuy wax nii ci télévision yi ak ci rajo yeeg journaux yi passé wul noonu de waaw waaw tout ne se passe pas comme prévu ni ñu ko yaakaare woon defar ay plan ni nii la war a awee ak yooyu demewul noonu de tey ñu ngi gis leneen lu dul loolu parce que dañu fekk ci yoon bi loo xamante ne loolu yaakaaruñ ko woon parce que dañu jàppe woon rek Hezbollah comme 2006 te Hezbollah 2006 ah 18 ans après dañu ko préparé bu baax utal ko ay industrie utal ko muy defaral propre armam di former nit ñi ak yéen yëpp dem na ba Hezbollah bu Iran buggee former ay irakien ay ay ay yéménite ay syrien wala ay vénézuélien wala ñenn ci Amérique du Sud Hezbollah moo koy moo koy moo koy chargé wu waaw instructeur militaire yi ak yooyu yëpp ñoom ñoo koy chargé wu dañu am seen école militaire comme ni ngay gis euh, West Point am ko muy États-Unis wala euh, Sanders ci Grande-Bretagne wala Saint-Cyr ci euh, euh, France euh, ñuy jàngale la doctrine militaire occidentale ñi aussi boobu la ñu am boo xam ne bu islamique donc te Hezbollah moom mooy li nga xam ne lépp lu formation éducation ci moom la nekk moo tax média israélien yi nee na am na ay tey ay longue liste de colonies yoo xam ne ci Galilée ak golaan tey dañu leen wax sax nañu toog ci seeni xusuun maanaam ci seeni zone protégée yi parce que laa yuqaatilunakum illa fi quran muhassana aw min warai judurin tu vois judur donc gis nga alquran waxoon nañu ko junni at ak ñeenti téeméer du ñu leen xeex mukk lu dul dañoo dugg ci seen zone protégée yooyu fortifier wala ci ginnaaw ay miir yooyu yëpp am na Israël tu mooy seen pax yooyu ñuy dugg tudde ko abri wala seen miir boobu yaakaaroon ne dinañu mucc ci Hamas te gis ngeen li ñu leen def ci 7 octobre yooyu yëpp alquran waxoon na ko mais ñun jullit ñi léeg dañu koy alquran bi daal pour barkeelu la pour jàng après tufli boo amee bopp buy metti nga ne euh, euh, jàngal ko xul wallaahu rek jeex na alors que au delà de ça ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy tubaab yi ñoom dañu dañu jël li nga xam ne mooy crème alquran moo tax imaamu ali alayhi salaam bi muy waaj a gaañu ci wasiyam dafa woo doomam xasan woo doomam xuseen ñoom ñëpp mu woo leen li nga xam ne dafa dafay dem mu ne usikum bi taqwallah wa nazmi amrikum li ma leen di njëkk a wax premier point dama leen di maanaam euh, euh, wasiya di leen digal di leen jox xel conseiller ne leen ragal leen yàlla waaye nazmi am na nangeen am méthode ak organisation waaw seeni mbir dee leen ko organiser parce que lu ñu lu ñu deful organiser du mën a dem waaw lu ñu organisé wu lu ne dafa am fu muy tegu tu ba pare mu teg ci bi mu demee di wax ak ñoom li ñu war a def ñu teg ci mu ne allah allah axaafu an yasbiqakum qawman gayrakum fi alquran fi haza alquran mu ne damay ragal imam hasan imam hussein ak jullit ñi nga xam ne ñooy taalibe yi ñu wër tey déglu leen li ma leen di wax damay ragal bis dina ñëw ñi nga xamante ne ni ñeneeni xeet yu dul jullit dina ñëw njëkk leen ci alquran bi maanaam crème alxuraan ñoom ñoo koy jël yóbbu bu ko defee ngeen nekk fii rek di ko wàccee di ci barkeelu euh, euh, euh, di ci bind ay garab ay teer yooyu yëpp benn la parce que yëpp mi ngi jóge ci islam waaw yooyu yëpp muy souvent muy kabbalistique yi wala kii cryptique yi chiffres wala lettre kabbalistique yi muy asraar yi yooyu yëpp moom la ñu tuddee ilmul jifr war ram la tu ak wal qiraa yooyu yëpp ci yonent bi sallallahu la jóge ñun am nañu téere yi di la jox histoire yëpp ak yooyu ba ci asmaa yi tur yi ak seeni seeni lépp waaw donc loolu yàlla dimbale parce que ahlul bayt ñoom ñoo doon loolu ana madinatul ilm wa aliyun baabuha waaw wa man arada al ilma fal eh, min baabihi donc aw bi bee madina bi min baabiha tu donc loolu dafa nekk lu am donc ñun dañu war a xoolaat suñu bopp sunu relation ak alquran suñu relation ak li yonent bi bëggoon ci ñun ak alquran waaye alquran wàccul pour ñu di ci barkeelu dañ ko wàcc pour ñu di ko jëfee waaye aussi essayer développer suñu bopp parce que moo ne iqra jàng leen pour am xam-xam wa iddu lahum mastataatum min quwa préparé wu leen lu ngeen mën ci doole te loolu mënoo ko def sans danga am euh, euh, xam-xam donc loolu moom mooy li nga xam ne mooy li am solo moo tax média israélien yi ancien commandant bi nga xam ne mooy escadron de l'armée de l'air muy major général de réserve Nimrod Cheffer nee na actuellement Israël mi ngi dund réalité bu difficile boo xamante ne ni mu ngi koy jot ci ci Liban waaw te musul am te kenn yaakaaru ko woon ba tey général de division de réserve boobu muy Nimrod Cheffer nee na gisuma benn estratégie boo xamante ne ni am na tey bu mën a génnee israéliens yi ci ci ci euh, opération terrestre bi nga xam ne am nañ ko ci Liban te loolu sax tiital na ko lool lool lool moo tax actuellement euh, ci jëmu boppam fépp foo xamante ne ni euh, ci Israël la sirène yaa ngi fay dem xam ngeen chaque jour entre mille cinq cent ba deux mille ci sirènes dafay jib ci israel moo tax kenn tëddatul kenn nelawatul kenn xamatul fi ñu nekk te actuellement moo tax ñu nekk ci suufu fii nga xam ne moom mooy Euh, euh, foofu ñu nekk ci abri moo tax Biden ci jëmu boppam déclaration bi nga xamante ne ni moom la joxe naan bu fekkoon te woon na ni moom mooy euh, ci place israélien yi muy Benjamin Netanyahu du xalaat mook maanaam dóor Iran beneen alternative maanaam dana xaar xalaat leneen lu dul dóor Iran parce que nee na Israël moom décidé pour répondre Iran loolu la Biden wax. te nee na bu fekkonte woon na ne loolu am na daal du xool euh, représailles militaires Biden nag ñoom ay naafeq lañu ay fenkat lañu ñoom ay jaruñoo wóolu jaruñoo yaakaar moo tax ñi jox sax seen waxi crédit nekk loo xam ne sax dafay doy waar surtout ko am xel. parce que seeni jëf ak seeni wax dafa wutee depuis un an gis nañ ko ci Gaza ñooy ñëw naan bul dugg Rafah loolu zone rouge la zone verte la alors bu ko defee. ñoom ñooy ñu ñëw dugg bu ko defee ñu naan non non non non ba affaire bi jàll ñoom musulman yeeg ñeneen ñi nekk nga xam ne ñu si gën a bari dañoo candide nekk ay innocent duñu comprendre li xew alors que lii stratégie guerre la moo tax te ñoom fen du dara ci ñoom moo tax euh, gis nga mu ngi ci même wax ji ci même kàddu gi mi ngi fenalaat boppam mu ne amul benn ad euh, maanaam euh, administration américaine boo xam ne dimbale na Israël comme ni ma leen dimbale effectivement depuis un an plus de bi ñuy mujjee xayma y a cinquante mille tonnes de bombe yu Israël yu Israël jot bokkul ak aide bi nga xamante ne huit milliards sept cent dollars d'armement ak aussi sànq am na aussi beneen bu ñëw te yëpp ñi ko fay ñoom ñooy arabi Saoudite Qatar ak Émirats arabes unis ñoom ñoo koy fay donc mu nekk loo xam ne lu doy waar la donc également Euh, euh, Pentagone euh, nee na moom ci jëmu boppam force yi nekk au Moyen-Orient gis nga eh, ñee day ñuy wax lii ñiy wax lii ñoom ñu ngi waroo nee na ñoom ci seen jëmu bopp pare nañu pour dimbali Israël bu ko demandé te Israël loolu dafa mel ni nga ne géej gi am na ndox Israël loolu la bëgg moo tax mu nekk ci donc ñun ñu ngi moom waa Pentagone ñoom ñoo yor wàllu militaire bi nee na ñu ngi jokkook ak yi. pour xool ba réponse la ñuy am pour euh, euh, euh, attaquer Téhéran loolu Pentagone moo wax loolu te fee benn maanaam ki nga xam ne mooy Biden mu la naan ñoom bu doon loolu la ñoom du ñu xool pour attaque Iran waaye lu ci mën a nekk ñu ngi leen di xaar à pied ferme te bu ñu sàgganul bu ñu sàgganul bu ñu sàgganul léegi ngeen dégg force Ridwan dugg na biir Galilée maanaam duñu leen xaar parce que actuellement ñi ngi nekk en débandade mille quatre cent soldats israéliens déserté nañu daw nañu xamuñu ndax dañoo dee wala fan lañu fan la ñu dem daw làqatu ji donc loolu day gën a galvaniser l'autre côté c'est-à-dire l'autre belligérant en l'occurrence muy la Hezbollah pour mu attaquer donc li nga xamante ne ni moom la euh, euh, américains yi ànd ak israéliens yi ñoom dañoo bëgg a détruire infrastructure yu Hezbollah ci opération bi loolu nekk loo xamante ne lu mën a am parce que actuellement yoon bi mu ngi koy wane te mi ngi dessiné donc ñoom ci waa Pentagone nee na ñu ngi waxtaan ak Israël ci détails yi waaw loolu nag euh, wonewul gis nga ñëwaat encore ne loolu wonewul ne euh, euh, cela ne signifie pas que Washington y participera loolu wonewul ne Washington daf ci bokk directement xam ngeen ba pare Biden ñëwaat ci même déclaration mu ne yaakaar na ne dinañu moytu ger totale foofu su waayta te loolu nag dafa laaj ñu liggéey lu bari bari donc xoolal moo lay won ne ñoom ci seen jëmu bopp fi mu nekk nii xamuñu fu ñuy teg seen euh, euh, euh, seen tànk mais quand même lu ci mën a nekk rek ñu ngi leen di xaar parce que Amérique dafa am benn stratégie mooy bu lay fi nekk du naan dina du ñu bàyyi Israël mais ñoom seeni force militaire du duñ ko engagé mukk xanaa ñu jël ay chasseur ay yeneen ñu dugal ko pour mu attaquer waaye wala dem sur le terrain rare lay nekk parce que dañoo ragal te ñaareel bi xam nañu ñan la ñu war a jàkkoonte jàkkaar lool donc ñooñ dañu am philosophie wu martyr maanaam dee ci yoonu yàlla dafa nekk ci seen philosophie moom lañ leen mooñaale gis nga chiite bi même bu fekkente ne ni juddu na bu ay tamxarit yi wala yeneen euh, mooy ci surtout Irak hmm, ak ak euh, yenn yi foofu bu ñuy jooy xale bi jooy dañ koy dompat pour muy jooy muy tàmm di jooy tu vois ak yeneen yu demee noonu Imam Hussein donc yooyu euh, dafa sori ci ñoom moo tax Euh, li ñu lay wax rek bu guerre bi paree rek ñu ne non ñun défendre nañ ko comme ni ñu def bu yàgg nii bu yàggul nii mardi bi Israël dañ ko ne bu ñu ko laalee ñu dóor ko ñëpp yaakaar nañ ne troisième guerre bu ñuy laal rek muy muy kii mais dafa ne non ñun pare nañu missile yëpp amul benn bu jàll ci ci Israël parce que pour bañ sëgg bëre waxoon naa ko ci sama chronique yi ne du sëgg bëre parce que li tax dafa ñemewul moom dafay bëgg a xeexe ci doole ñeneen moo tax nga nekk xaritu noonu Amérique moo gën nga nekk xaritam parce que boo nekkee noonam moom dana leer ne kii sa noon la waaye boo nekkee xaritam maanaam dina la jëf jëf boo xamante ni jëfu noonu dëgg lay doon donc doo dal mukk loolu américains yi li may wax nii ñu ngi xam nañ loolu donc euh, euh, euh, mu nekk loo xam ne lu ama am solo ci ci ci ci ci li nga xam ne moom lañuy ñuy jànkonteel tey donc li am mooy actuellement Euh, Israël mi ngi subir euh, ñu ngi koy dóor euh, dóor yoo xamante ne ni yu metti la yoo xamante ne fi mu nekk nii xamatul naka lay def te yaakaaruñu mu mën cee génn nii comme ça te du dem donc même gis nga ci dernière xibaar mooy avant dernière xibaar bi mooy gis nga li ma leen doon wax ci journalistes yi surtout Al Jazeera bi nga xam ne moo nekkatul Tull Karam seen correspondant bi dóor nañ ko fa dóor yi méttee métti métti métti yoo xamante ndax yenn xibaar yi muy joxe te du dëgg di yàq xel yi ah, xam ngeen am na ci ay journalistes yoo xamante ne ni seeni euh, euh, li nga xam ne xibaar surtout ci analyse militaire euh, ñoom dañ ciy joxewaale maanaam position ñi nga xam ne ñoom ñooy xeexkat yi ñi nga xam dañu contre Israël maanaam bu dee ci waa Hezbollah wala ci waa Hamas ñoom ci seen jëmm bopp dañuy leen di jox ay position surtout analyste militaires yi ñoom douéri yi et consort nga xam ne ñoom ay anciens euh, euh, euh, agent wu service de renseignement et forces spéciales yu Jordanie te xam ngeen Jordanie paiement wu militaire yi mi ngi jóge Amérique ak Allemagne donc gis nga pour bon bonu israélien bi ñuy jeexale mooy nee nañu la sa ki nga xam ne mooy l' ancien premier ministre britannique bi Boris Johnson moom ci jëm boppam nee na Benjamin Netanyahu dafa installé woon ay appareil d'écoute ci salle de bain personnel waaw ci visite bi nga xamante ne ni euh, mu ngi ko doon visiter ci siège am bri maanaam britannique waaw bi nga xam ne nekk na ministre des affaires xam nga loolu dafa garaaw maanaam israéliens yi dañu dem def ay appareil yoo xamante ne ni de surveillance d'écoute ci salle de bain wu ki nga xam ne moo doon premier ministre britannique muy euh, Johnson ci livre am tudd On Let Church moom la ci la ko euh, affirmé muy wax ne équipe am équipe de sécurité bi ci la ñu mujjee trouver appareil d'écoute yooyu ci toilette yi gannaaw bi nga xamante ne ni eh, kii di Netanyahu mi ngi ko doon utiliser gis nga sa xarit li ma doon wax ba ci ci Amérique moo ñëwaat nii rek ci Israël waaw eh, maanaam ay eh, nekk ñoom noonu mooy gën a am jàmm sax nga nekk ak ñoom xarit donc Johnson mi ngi expliquer ci livre bi ci ci maanaam Euh, di ko wax surtout médias occidentaux yi mooy li may li ñuy metti lu ñun ñëpp mu ne tout ce que vous devez savoir sur cette question se trouve dans le livre li ngeen soxla pour xam ko ku dem ci livre bi ma wax ni bu Boris Johnson Enlightened Enlightened di ngeen ko ci gis donc John euh, ki nga xam ne mooy John euh, Johnson mu nekkoon premier ministre bu britannique nee na ci rencontre yi nga xamante ne doon na ko def moom ak Euh, premier ministre bi ci biram boobu euh, gis na ne ndekete euh, comme ni mu ko waxee nii loolu la looloo fa nekkoon te yàgg nañ ko di ko maanaam surveiller di ko déglu waaw donc mu nekk loo xam ne lu am la waaye li ci li ci kii rek mooy bi mu koy yëg fekk musiba bi am na gannaaw bi nga xam ne def nañu ay analyse régulière ci appareil yi Euh, ak disposition yi nga xam ne mooy découte yi ci lañu ñu loolu donc euh, mu nekk loo xam ne lu doy waar la xanaa di yem fii euh, incha allah ak yéen ba suba dama bëgg na bu ci yàlla mayee ma def li nga xam ne mooy analyse géopolitique géostratégique pure ci li nga xam ne moo tax a jóg maanaam remodélage le Moyen-Orient te mooy indi guerre bi nii te Benyamin wo doon ko wax waaye aussi ma indi li ñu tuddee moom mooy abrahamique mooy ittifaqiyat abrahamiya mooy les les accords d'abraham nga xam ne léegi dugg si na sax ba Sénégal dugg si na ba Sénégal waaye ñu bari dañoo xamul parce que turu Ibrahim bi rek moo leen moo leen neex fekk lépp politique la ci biir yooyu yëpp suba dinañ ko décortiquer euh, indi ay analyse yu leer ay décryptage pour leeral loolu incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Touba